الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ñu ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu màgg yi ak melokaanam yu kawe yi te sell yi nga xam ne sunu boroom rek mooy ki ko moom mooy ki ko jagoo ñu ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu borom bu dëkkee doot ci waamam xéwal ci kaw yonentu boog ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim ci ndimbalu sunu borom ak tawfiqam ñu ngi nekkoon ci saar wi di suratu luqmaan borom bi defaloon na tawfiq ba ñu yegsi woon ci laayay ñaar fukkeel yu manqué benn muy fukk ak juróom-ñeent sunu bi def tey di tàmbalee ci laayay ñaar fukkeel fi sunu borom di waxee ni audu billahi min alsheitan irajim bismillahi arrahmani arrahim ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير kon ci juróom-ñetti aaya yooyu sunu boroom mu màgg mi te kawe ci saar wi di suuratu luqmaan sunu bind bi weesu bu ñu fàttalikoo ñoo ngi nekkoon ci ñaareelu xaaj bi ci xisab luqmaan ba mu jeex waxoon naa leen li gën a wér ci luqmaan te dëppoo siyaaqi alquran mooy luqmaan dub yonent waaye nit ku yàlla baaxe la jox ko ci ay xeeti xam-xam loo xam ni mënees naa wax ni mooy garab yi nar a topp ci yonent muy xikma bind bi weesu bu fekkee fàttaliku nañ gis ngeen ndénkaane yu am solo yi nga xam ni alquran nettali na ko ak yi nga xam ni sunnaa ko nettali ak yi nga xam ni borom xam-xam yi ahlu siyar ñoo ko nettali luqmaan képp kuy yarkat ku ne war na koo def ab modèle ndax xam ngeen ni luqmaan fi fi nit war a tàmbalee cib yar booy yar nag moom foofu la tàmbalee bu ñuy yar gone muy laa tushrik billah ndax nit ki boo ko gëmloo nit tooñ dafa rëy dafa bon te tooñ gi gën a rëy mooy tooñ suñu borom te tooñ suñu borom ba ca gën a rëy mooy bokkaale yaakaar naa boo wàccee kañ cay teg mooy wayjur boo wàccee kañ cay teg mooy nit ñi jëflanteel boo wàccee da ngay wër àddina bi yépp wala tusair xaddaka linnaas linnaas mooy jamiu nnaasi fi l ard muslimihim wa gayri muslimihim wala tamsi fi l ard marahan ak aayaat yooyu nga xam ni maanaam nit ki dafay dem ba fa gën a kawe ci yarul lay tàmbali muy digganteem ak boroomam waaye dafay wàcc ba fi gën a suufe mooy digganteem ak nit ñi ñépp nga xam ngeen ne jullit kat ab yaram dafa war a yegg ci kurul jullit sax da koy yëg nga xam ngeen ni waxul ko wala tusaahir xaddaka lil muminina wala al muslimin te ni ko wala tusaahir xaddaka lil naas kon yooyu xeeti jëflante yoo xam nit ñépp a ko bokk bu ko defee yar bi kat day yegg foo xam ni nit ña la ñuy wax kay mooy yii jikko kat nekkul lu dul jikko yonent yi wala ndongo yonent yi aay tey ji suñu boroom di lim nag xéewal yi nga xam ni defal na ko te mbokk yi aay ñaar fukkeel jii boo ci tegee baaraam bala ngay jàll da ngay gis ni gis nga dafa bokk ci uslubu convaincre nit ki mooy nga wàcc martaba ja nga toll yow wàcce li ngay wax ba am toll ci dégg-déggam te it nga wax ko loo xam ni moom bu wéetee dana xam ni lii nga ko wax du ay nax dëgg la te loolu uslub la ba léegi ci uslubu tarbiya la bokk uslubu yar gis nga borom bi subhanahu wa taala kuy am doole moo la ëpp doole kuy am xam-xam moo la ko may kon moo la ko ëppale taxul di wax waaye suñuy jàngal ci alquran alquran siyaaq yi ni muy waxee dafay mel ni waa joo xam daa taxaw fii di yërëmtalu ngir nit ñi nañ ko fekk si ci lim bëgg fekk déedéet bal kay suñu borom maadaama saxal na ni yërmande moo jiitu meram kon bu ñuy jàngal faw mu wax lu loo xam ni kat suñu yaram day daw ndax am na yenn xeeti xéewal yoo xam ne bu ko borom bi limee nga dégg ni lii kat moo wax dëgg yàlla doomu aadama su wéetee ci biir néegam mu teewlu aaya ju mel ni di ñuy tàmbalee tey yàlla moo nu defal nàngam moo nu defal nàngam moo nu defal nàngam ñun ñu koy dekkal ku ko fekkee tontu bi mooy kenn waaw ñun lu def ba tax mu defal nu ko tontu bi mooy dara waaw ñun moom buñ ko defalul woon luñ lu ko ciy fekk tontu bi mooy dara waaw kon lu tax mu def ko xanaa baax rek su dee jom yàlla monté appareil jom monté nañ ko ci yow maanaam soo jugee day tax nga gën a góorgóorluwaat usulub boobu nag mu rabboo ni war nañ koo xam amaana tey nit ki mën nga koy yedd mu nekk ko ne waaye fàttali ko ni way juróom di sonnee ci moom fàttali ko yi nga xamante ni yooyu ko wër te gën koo jege yooyu dafa bokk ci asalib yi tax nit ki mën a baax te loolu nag dafa fees dell ci alquran suñu borom bi nu fàttali li ñuy defal ci ay xéewal suñu borom ni alam taraw xanaa dégluñ ak taxaw seetlu ci ni anna allaha seen borom yàlla képp saxara lakum moo leen tàggatal maa fi samawaati mboolem li ci amaan yi wa maa fi l ard ak li ci suuf li ci asamaan yi suñu borom daf leen koo tàggatal xam nga ne bu nawet jotee fii nu toll nga xam ni jamono jii ñu toll kenn fi ne ngelawal bàq mooy xëy te bàq bi balaa am ngay fekk ab taw bàyyi koo ci asamaan si taw bi suñu borom moo ko tàggat mu wàcci gis nga li saltige yi wax ak li météo di wax ak dara ci safut suñu borom subhanahu wa taala ndax li muy def moom dogal na ko ba noppi yàlla dafa bind li war a am ci kaw suuf balaa muy bind àddina beeg doomu aadama yi toll ak juróomi téeméeri at kooku li saltige yi wax fu mu koy safee koo xam ni yow li nga liggéey bu doon ab maquette la nga ni maquette bi liggéey nañ ko avant mbir mi di génn lu toll ak juróomi téeméeri at ñi fi war a jaar ci ay nit li fi war a am ci àddina bi ba keroog àddina bi tukki juróomi téeméeri at avant yàlla di ko sàkk bind na ko ba noppi bind na ko dogal na ko teg fële nga xam ne loolu moom pare nañ ca xudiya al amr kon yaakaar naa yi nit ñi wax yooye ku gëm yàlla dootu la yëngalati ci dara parce que da ngay xam ne borom bi subhanahu wa taala dogal na lépp ba pare waaye nag sunu borom moom istidraj da koy def sanastadrijuhum min haythu la yaalamun mooy am saltige mooy taxaw fële wax ay wax xam nga nit ñi vraiment man dëgg-dëgg muusuñu da ngay dégg benn saltige mu ni ren bi ma defee samay xooy ren kilifa diine ku màgg dana dee ci réew mi dama ni réew mu kilifa diine gu dul dee at mu jot amul loolu ay ay xam nga mooy wax sànni ci jaww ji kilifa diine yi bari nañ fi kay dëkk bi ñu tudd dégg ngeen ko ñu ni kilifa gu mag dana fa dee dëkk bu toll noonu nga xamante ni ña fa nekk ñëpp ay kilifa dañ jàppee seen bopp boo nee kilifa dana dee tuddoo tur loolu du cus waaye parce que faaw kilifa dee dana am ku dee kay ndax xam ngeen ni jamono bi ñuy dee dañoo bari Sénégal deret ju bari dana fa tuuru nag mës ngeen a gis at mu deret ju bari tuuruwul fii Sénégal loolu laay laaj man at la deret ju bari tuuruwul at mu te noonu lay kon ne ba yemal xiyaama nag parce que jëmuñu jamono lañ toll gis nga daal yoo xam ne waxuma sax ay problème u aqida di ko bañ waaye intellectuel bu muus bu koy déglu sax xelam du ko mën a nangu parce que loolu ay mi ngi mel ne rek wax sànni ci jaww ji loolu dara ñépp a ko mën tey jii bu la neexoon yow nga taxaw fee wëndeelu ba mu neex la nga ne deret ju bari dana tuur te wéeru nga giñ ko te boo ko giñee di nga wax dëgg xamoo fan lay tuuroo waaye xam ngay di nga tuuru parce que noonu lay demee population bu day ne am réew faaw deret ju bari tuuru yooyu du ay wax yoo xamante ni maanaam waxi tàngal ngaay kese la amul njëriñ waaye borom bi mooy kii wàcc taw bi bàyyil taw bi xool fubal naa wi dem naa sax ba dégg ne am na xeeti avion yoo xam ne xaw ma xamatuma sax ñu koy tuddee yooyu moom nit sax du ca nekk nag faf moom moom noonu lay dawee ci jaww ji ah drone gis ngeen ko mi ngi noonu loolu man ba ma ko déggee sax damaa gën a yéemuwaat ci yàlla maanaam laajuma sax ñu ko defar ba ma ko déggee moom laajuma ko sax maanaam yooyu li muy dolli ko gëm yàlla mooy ma zaadakum illa imanan wa taslima maanaam yooyu fi ne saa bu yegsee rek daa war a dolli ki gëm-gëm yàlla ndax day gën a xam ne rek inna allaha ma ala kulli shay'in qadir ndax loolu daa am ku ko defar te ka ko defar dañ kaa defar te kii defar ñëpp mooy yàlla kon toujours nañ ko delloo ca ki ka gën a yéenu muy suñu borom gis nga yàlla tàggatal nu jaww ji ba avion fofal naaw naaw ca kaw dox say soxla nga wàccaat yooyu yëpp ci xéewali suñu borom yi gis ngeen satellite yi satellite yi ñuy sànni ci kaw jaww ji gis ngeen antenne parabole yi ila axiri yi lépp day sànni téléphone yi kon maa ci samawaat ci agul asamaan wala day dugg ci biir yàllaa xam waaye lan li ñu tiim lépp nga xam ngeen sama léeg-léeg arab dina ko fekk ni la tiim nii rek la ci nam suñu borom tàggatal na wa asba wal ard wa ma fi l ard ak li ci suuf si li ci suuf moom defe naa moo gën a yaatu ci ay wax xoolal tali yi xoolal terrain yi xoolal warwaay yi xoolal dëkkuwaay yi xoolal tool yi entreprise yi usines yi ah wa ma fi l ard borom bi tàggatal nu lim ñu tàggatal bari na trop wa asbaga alaykum suñu borom sóob ci seen kaw niamaku ay xéewalam zahiratan li fës ba bët di ko gis wa baatina ak lu nëbb xéewal yi bari na lool am na xéewal yoo xam ne gisoo ko waaye ay bu ko suñu borom téye woon subhanahu wa taala une seconde rek laa wax adduna bi day daal di fay day yàqu xéewalu ngelaw xoolal xoolal ngelaw ngelaw min an niamil baatina doo ko gis boo ngëbee nii boo paree boo dalalee dara doo fekk dara gisoo ngelaw te borom bi bu ko téye woon benn seconde rek yëf yi jaxasoo kon gis nga borom bi subhanahu wa taala lépp lu def ñu koo tàggatal kon takrima gi yàlla defal doomu aadama loolu doomu aadama war na ci rus ba tax mu gën a góorgóorlu wala qad karramna bani aadama aadama yàlla da koo dimbali teral ay doomam ah ndax xam nga ni moos xar mi judd bërës bërës bërës mu jug di dox loolu du teraanga teraanga mooy mu di la bàyyi nga tëdd di noppalu ñu lay mekk mekkal ak nepp neppal ah tibb lekk xam ngeen ne bokkut ak jël sa gémmiñ di lekkee nga xam ne lu ne la naa ne te lekk da ngay bomas bomas di dem rek comme ni nag yi def ak fas yi déedéet takrima gi yàlla defal doomu aadama dépassé na loolu rab rek ngay gis fañ koy yeew fa lay lekkee di fa naanee di fa sangoo di fa demee àll loolu bu ko doomu aadama doon def musiba am waaye takrima gi yàlla defal doomu aadama wax loolu wa xamalnaakum fi lbar walbahr ah wa razaqnaahu min altayibat wa faddalnaahu ala kathirin man xalaqna tafdila kon teraa ngay yàlla defal ko doomu aadama subhanahu wa taala loolu nit ki bu koy xalaat day tax mu gën a fasaat jom nag nga xam nga nit ki nga woo yedd ko wax ko yu mel nii loolu ci nit ak doomu aadama day fas jom waxuma laa moom bu fekkee borom bi mooy wax ak jaam suñu borom bi wa min annaasi am na ci nit ñi man ñoo xam ni wala waa joo xam ni yu jaadilu day dàggante di werante fi ayaatillahi ci xéewali yàlla yi werante ku weddi waaye bi gayri ilmin te tegewu ko ci xam-xam yu jaadil day dàggante fillaahi ci yàlla bi gayri ilmin ci loo xam ne tegewut ci xam-xam ndeysaan loo wax rek non lii avec nature bi xam nga nature bi mel nii moo tax moom daal du nangu lenn lu yàlla def subhanahu wa taala gis na gis gars yi ñoo nature bi comme lan la big bang di wax ay wax yoo xam ne yow waxuma la sax nga di ko gëm waaye lu muy tekki sax nga dul mën a xam fa parce que expliquer lii nit ñi comprendre ko moo gën a yomb expliquer loola parce que léegi lii moo daje lii kii lii mu jekki-jekki mu sosu loolu mënul nekk déedéet mënul nekk xam nga liy nekk mooy lu nekk rek daa am ku ko fi amal mooy yàlla subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala mu ni wala hudan du ko teg ci njub comme ni nga xam du ko teg ci xam-xam wala kitaabin munir du ko teg ci téere wala ab law lay woo xamante ni wu leer la maanaam da ngay gis koo xamante ni la muy wax te lii lépp nag gis nga philo philo philosophie ñoo ñu ko yóbbee de gis nga idée yii moom lii moom moom moom seen ak jagoo la ñoom gis nga l'islam ci boppam affaire philosophie mosu ci woon a am bàyyi leen xel bu baax li may wax man waxuma ñuy jàng tubaab ak yooyu ñoo ñoom taxul ñoo ñun ci diine la ñuy waxee gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee Abu Bakr jóge fi Umar jóge fi Osman jóge fi Ali jóge fi Muawiya jóge fi Yazid jóge fi ba dawlal Amawiya jeex takk ba dawlal Abbasiya taxaw ca jamonoy Mamun ja ci la mbir yi nag commencé am doole waa Perse dugg ci l'islam xeeti yeneen ñu commencé traduire téere yi téere bi nekk traduction yii ngeen gis muy am ca jamono bii may wax ci la tàmbali ndax ci leen jël téere philosophie di ko traduire ci arabe jël téere arabe yi di ko traduire ci yeneen làkk civilisation jullit ñi ci la gën a commencé développé di wasaaroo su ko defee jullit ñi di jël civilisation jàmbur jàmbur yi ñëw di seet lu ñu baax di ko ngett ci yóbbu ñoom it lii ñu jàng taarix jàng histoire xam nañ li may wax bu baax gis nga ba loola amee nag ci la affaire yi commencé jaxasoo ah ñoom Ibn Sina yi ngay dégg ah ak gars yooyu nga xamante ni ay philosophie l'islam lañ leen di askanale di wax ay wax yoo xam ni kenn xamul waxi lan la ah ñii nga xamante ni tey seeni mbir moo jeexintal ba jeexintal ci suñuy cadre ci l'islam comme kan imam Ghazali la shakka Ghazali borom xam-xam bu mag la bu ragal yàlla borom xam-xam bu mag. bu ragal yàlla bu dëddu àddina foofu te da waaye xel la yoo xam mbokk nit ki am ay njuumte du tee ñu waxal ko lam baax le rawatina bu ñu xamee ni kii bëgg a bon le tax ko woon a jóg ñu bari ci ñun ndongo yi sama classe bi nga xamante ni daanaka genn wàllu téere rek lañ jot a jàng jàngum sax téere bu yàgg boo tuddee ñu mel noonu rek ñu ni kenn woon déedéet ki nga xam ni moom yàq ko taxoon a jóg bokkute ki nga xam ni baax dafaaxale ko taxoon a jóg imaamul Ghazali ñoom ak imaam yu mel ni ñoom ñu ragal yàlla lañ ñu baaxoon lañ defar tax leen a jóg waaye civilisation boobu ak falsafa boobu nga xamante ni moo wasaaroon société islam bi dem na ba jeexintal ci ñoom nga xam ni boo tiimee seeni téere da nga fay fekk ay wax yoo xam ni daanaka doo xam ci asamaan sa la xawar ci ko doo xam ba xam ci suuf si la ballee xam ngeen téere boobu gën a sa ihya ihya ulumuddin téere la boo xam laa su kam nay njariñ nag mu am nay njariñ yu bari sax waaye nag moom ay tarxiis yu baree la yu mel noonu li ko waral nag mooy lii bu ko defee nit ñi waaw waaw yàlla kii affaire bi fii la tàmbalee dafa jékki-jékki woon rek nekk affaire bi benn jékki-jékki tasaaroo xam nga lii nekk fee lee nekk fële di wax ki ko ko def kenn defu ko dafa jékki-jékki rek am fi fekk déedéet yàlla subhanahu wa taala lim wax loolu la ñu gëm mooy moom moo sàkk xalaqa samawati wal ard moo sàkk asamaan moo sàkk suuf sàkk biddéew yi sàkk lépp nga xamante ni mooy xéewal yi nekk ci li ñu tiim ak li ñu li nga xam ñun ñoo ko tiim ñu ni suñu borom ni ñooñu bokk na ci seen ak yàq ak li muy def jeexintal ci ñoom mooy wa ida qiila lakum bu ñu leen waxee ittabiu topp leen ma anzala allahu li yàlla wàcc te ngeen bàyyi li keneen xalaat qaalu dañ naan bal nattabiu ñun kay dañuy topp maa wajadnaa li nga xam ne dañ koo fekkoon alayhi ca moom abaana sunuy baay nattabiu maa wajadnaa alayhi abaana liñ fekkoon sunuy baay la ñuy topp gis nga aaya ji aaya la ju kéemtaane li ko tax a kéemaane mooy dafay firndeel la doon am ca jamono ji yàlla wàccee aadama ba tey gis nga layee ictibaawul aaba loolu dafa mas a yàgg ci kaw suuf te moo nekk mas a nekk nag layoo yéebari woo mën a gis nag gis nga loolu bul bul société bi ngay dundoo réew bi rek boo gisee waaw ku fi wedd li mag ñi nekkoon da ngay torox ku fi wedd li mag ñi nekkoon da ngay torox dañoo fàtte ni mag ñi ñoom dañoo wedd li seen bàyyi nekkoon ñoom lu tax toroxuñ ñoom c'est ça la question ah waaw ñoom seen baay dañoo weddi si li seen baay nekkoon bul fàtte loolu mag ñi amu ci kenn ku nekk la sa baay nekkoon mag ñi dañoo ñëw xool ba sippi li xam ne li seen i baay nekkoon am na yëf yëfaan ñu ni ko fa ñukk sos lu bees kon nag loolu war naa may liberté ku ñëw gis la baax nga topp ko gisoo loo xam nga sosaat li ne doo torox de parce que moom ma ko wax torox genn nga beneen bi ci des mooy yàlla dafa def seytaane ci jëmmi boppam maanaam mooy diri doomu aadama yi loolu yonent yàlla bi nee na inna shaytaana qaada libni aadama bi atruqihi shaytaane dafa toogal doomu aadama ci mboolem yoon yi mu war a jaar pour am yàlla mu ni fa qaada lahu fi tariqi lislam wa qaala lahu atuslimu wa tatruku diinaka wa diina aabaika wa aabai abik nee na shaytaane fi muy njëkk ñëwee day ñëw boo waree tuub dugg ci lislaam mu ni ah yow da ngaa nar a tuuba ah kon yow moom mooy yaa gën sa baay yaa gën sa maam yaa gën sa maami maam ndax ñun nit ñu nekk ci lii yow nga ñëw juddu barki dee boo njaay yow yow ñoom ñoo la mag ëpp la expérience gën laa bëgg yàlla gën laa baax su ko defee sentiment commencé laa jàpp na yaa wax nga dëgg de ah déedéet déedéet loolu musul am yonent yàlla yëpp dañoo juyoo ak seeni baay yonent yàlla yoon yoon yëpp a juyoo ak seeni baay allahumma lu dul wattabaatu millata abaay ibrahim da ñëw ci surtu Yusuf nga xam ne Yusuf ba muy daawa dani man nag samay diiney maam laa topp lu tax parce que diiney maam dañuy cocc moo tax mu topp gis nga rek mu ni bu ko defee waa ji dëgër bopp mooy ko tuub dugg ci lislaam loolu kenn la ci ñuy dëgër bopp waaye bu fekkee gars yi ci des dañ koy topp mu ni fa qaada lahu fi tariqi aljihad wa qaala lahu atujahid fa tuqtal ah yow da ngaa bëgg a dem jihaad ñu rey la ñu mun la reyee sa jabar tiiñ say doom ñàkk ah tee ngaa xoolaat li ngay def bu ko defee am ñu reculer mu ni waa ji mooy ko moom mu jàll mu daal di ñëwaat toogaat ko ci joxe yoonu joxe yow jamono bi ni mu méttee gis nga crise bi fi nekk 2011 bii nga xam ne entreprise yëpp daanu nañ ah gis nga fi ne kenn daanaka ñi doon saraxe sax léegi saraxeetul di waxal la nag li xew ci 2011 bi nga toll nag lépp bu ko defee nga daal di commencé yooyu daal di deltu gannaaw dencaat li nga yore woon waa ji moom bëtt ko jàll mboolem buntu yi nga xam ni falan mën a jaar mu jaar fa bu paree yonent yàlla bi nee na gis nga boo ko rëccee ci buntu yi boo fakkastaloo deetaa bi àjjana boo siburoo boo deetaa bi àjjana lu la dal booy deetaa bi àjjana ak am solo doomu aadama dëgër ñu ci buntu bi rëcc seytaan bi mooy qaada libni aadam bi atruqihi te gis nga li mu koy posé mooy sa diiney baay sa diiney maam gars yi luñ doon xasbuna ma wajadna alay abaana li suñu bàyyi nekk doy nañu gis nga li suñu bàyyi nekk doy nañu gis nga kon ñoom niti niti huur niti saalex yonent yàlla yooyu yëpp boo toppee alquran daanaka loolu ngay gis kenn ku ci nekk rek la muy wax nattabi ma alfayna alayhi abaana liñ fekkoon suñuy baay daal xam nañu xoolal ab Abdul Mutalib xoolal Abu Talib Abu Talib moo la gën a xam ni yonent bi li muy woote mooy dëgg moo tax mujaradul iqraari faqat laa yanfau lmumina abadan illa bil amal salihat nangu naa comme ni ko Sénégalais yi waxee xol a takk loolu amul benn sens ndax bu doon xol moo takk Abu Talib tàbbi àjjana Abu Talib moo la gën a xam ne yonent bi ci dëgg la nekk way na ko ay way yu bari défendre ko guddeeg bëccëg bi mu dikkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waxal benn baat muy laa ilaha illallah ma layal la ci kanamu yàlla lu mu ko tontu xam naa ne li ngay woote mooy dëgg waaye nag damay bañ yeddaange oh moo tax xarit bu bon baaxut boo ponkal
ah abalisa yaa ngi toog mbokkam yooyu ñu naan ko ah Abdul Muttalib nekkoon ci lii nangam nangam diw nekk ci lii diw diw di ko limal ay maamam yu bari te ñoom sax la Abdul Muttalib nekkoon ak ñoom liñ nekk bokkul parce que Abdul Muttalib képp ci diine ju set ja la newoon muy diine baay Ibrahima ci jamono jooja ndeysaan dee daal di koy dikkal yonent bi bënn ba di jooy parce que yaakaaram tas na ndax kii lim ko défendre lépp te mënta fexe ba rëcciloo ko yaakaar naa ne su amoon kenn kuy mën a rëcciloo kenn ci say pexe bopp yonent bi rëcciloo Abu Talib ci pexe boppam doomu aadama yi war nañoo yeewu ci bunt boobu.
kon gis nga moo tax mu ni ko borom bi subhanahu wa taala mu ni gars yi bu leen waxee topp leen li yàlla wàcce dañ leen xasbuna ma wajadna alay abaana liñ teg suñuy baay nekk. bal kay nattabio dañuy topp maa wajadna alayhi abaana liñ fekk suñuy baay suñu borom mu ni awalaw kaana donte dafa nekk abauhum aw awalaw kaana shaytaanu donte dafa nekk shaytaane kat wala shaytaane dafa nekk yad'uukum di leen woo ila adabi sair ci mbugal mu méttee métti ndeysaan mooy la bàyyi nekkoon bu ko defee doomu aadama yooyu dañ ko war a bàyyi xel lu ti ti lii nag mooy ni ma koy faral di waxee ci côté diine rek nga koy fekk nag côté diine rek lalu xàng bi sa bàyyi doon tëdd doodoo ci tëddati gongo gam doon toog dootoo ci toogati ah filiyaanu saako ba dootoo ci toogati ah njoowaan nga nga xamante ni ay diis lañ ko defaree wëñ ak diis dootoo dootoo ci njoowaan ah modernisation bi yëpp nga ñëw ànd ak moom côté diine moom amut baax amut bon xasbuna ma wajadna alay abana loolu sa xel na ko parce que maanduwul lay maante mooy bâtiment bii sa baay dëkkoon nga xamante ni mi ngi fàq bay waaj a daanu bu dee gëm nga ne la sa baay nekkoon baax na rek nekk fa ba mu fekk la fa wala mbaaram ñax ma bu ko génn da ngaa dem ba xam ni moom lee la tolloo woon jàpp ca yow lii nga tolloon jàpp ci beneen bi ci des mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa juyoo wan ak i baayam gis maanaam juyoog sa baay fenn rek lay bonee mooy nit ki baayam nekk ci njub ba noppi mu juyoog mu parce que boo juyoog sa baay ci njub mënoo dem fenn ndax fa ma zabada al xaq illa dolal ginnaaw jub moom amul fu nit ki mën a jaaraat kon gis nga bunt bi bu fekkee nit ki gëm na yàlla da koy ñeme nag maanaam juweeg bàyyi dootul garaawati nag léegi in naqulu illa taraka baadu alihatina bi suu lay bu laa xisañ bi jàppee loolu mooy bu laa xisañ bi jàppee loolu lay tekki ah ndax booba aliha moo fi amoon la tey aliha amul da ngay gis koo xamante ne nag bu la bu la bu la jub da ngay da ngay alku de wér di sàngam boo ko jëlee boo ko bàyyee da ngay alku de doo alku fenn doo àll ko parce que loolu mënta àll ak kenn déedéet mënta àll ak kenn ndax l'islam sax am na ñu ko bàyyi te yàlla alagu leen dinañ àll ko nag islam mu ngi ko bàyyi di nga àll waaye am na ñoo xam bàyyi nañu l'islam sax te ba léegi àll ko yàlla mu ngi leen bàyyi ba ci kanam lan moo gën a foor l'islam xanaa bu ne wér di lu baax na kon ci biir l'islam di la war a bokk bokk yu mel noonu nit ñi dañ ko war di xam soo seetloo jàngalekat yi ak leeralkat yi baat yu mel nii dañ koy faral di ñépp ñébal di ko lees ci ragal di wax pourquoi ñu mën a may autorisation ñi waxi caaxaan chaque jour ñuy dugali caaxaan seen bopp boppi nit ñi ñiy wax lu leer nag ñu ne ah bul wax boo waxee da ngay yeefin na da ngay kan moo yeefin na kenn tuddut kenn alquran yàlla ci la ñuy wax yàlla lii la wax de diinay bàyyi bu ñu koy topp day fekk diina ju jub la ju baax wuuteeg bàyyi taxut a am ko ndax am na koo xam ne daa wuuteeg bàyyam ba noppi saa boo gisut loo xam rek jaaral ca la nga xam yàlla yonent bi la yabaloon ci ñun ay ahadith ma ngi fi alquran moom laa yubaddal wala yuxayar ila yawm alqiyama kon suñu borom mu ni donte seytaane dafa taxaw nit gis nga seytaane nag lii da koo neex moo tax gis nga nag buntu boobu xam nga fu muy jaaree nit ñi bidaa bidaa imam Hasan al Basri nee na bidaa bidaa neex na iblis de iblis dañ ko laaj iblis bidaa bàkkaar bu la gënal mu ni biddaa lu tax iblis mu ni bàkkaar ku koy def ku ne loo saay saay saay saay xam nga ni li ngay def baaxul kon sa xel mi ngi daj tuub donte defagoo ko biddaa nag lu ci nekk mu ni biddaa ku koy def ku nekk da ngay gëm ni li nga nekk mooy la baax te ku nekk ci lu baax looy tuub doye moo tax iblis iblis mubtadia da koo neex al mubtadiuun biddaakat yi da leen a neex su ko defee doomu aadama di sos di dem rek di fent yi dem rek maanaam loolu nag la muy tekki mooy tuumaal yonente parce que li ko yàlla yónniwul matalu ko te yonent bi alei sallam leeral na lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon seytaane mooy def ay pexe ngir jàddaloo nit ñi sunu borom ni wa man yuslim képp ku jébbal ku jébbalu wa man yuslim ku jébbalu ku jébbaloo wóor loolu la gaa yi wax ma ni waaw xam nañ dëgg de moo wóor waaye nag bu fekkee ci yàlla lañ ko def moo wóor de wallahi moo wóor loolu de kalimatu xaqin lakin ha huna kalimatu xaqin urida biha albatil jébbaloo wóor waaw ak wér moo wóor de waaye jébbalul yàlla subhanahu wa taala ah aslamtu wajhiya lillahi rabbil alamin aslamtu maa sulaymana lillahi rabbil alamin jébbalu moom koy àndal na ngeen jébbalul yàlla subhanahu wa taala islam al islamu wal istislaamu la yakunaani li ahadin illa lillahi rabbil alamin yàlla rek jébbalu jébbalu mooy bopp sama jubbi kawar yi ba sama catiwey tànk yi lépp laa jël jox la jox naa la sama bopp addina ak àllaaxira loolu yàlla rek lañ ko war a wax mbokk yi yàlla rek wallahi waruñu koo jox keneen yow koo xam ne boo ko joxee sa bopp fii ci addina du ko mën a réglé àllaaxira kon fu mu jëm du ko réglé de déedéet àllaaxira moom réalité ya fa am bokkut ak fii de ay bàyyi diw xaar leen bàyyi diw kuy saagar saagar ñu lay xaar déedéet kenn dafa dul suñu yére bañ lay xaar suuf su weex tàll tàll ñareet ah mbooloo ma rëy lool bari lool laysa fiha alamun li ahad amul kenn kuñ naan ñi ñooy waa kër diw dajale leen déedéet amul foofu de fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun gis nga maanaam doomu aadama yi dafa mel ni li ñoom dañuy weddi alxuraan te yëguñu ko parce que yi ñuy saxal yëpp contraire bi yoon la yooyu yàlla wax ci alquran maanaam li yàlla wax ni looloo am ci al alquran ak nit ñi li ñuy wax ni looloo am àllaaxira bokkul de bokkul de déedéet sunu àddina bii rek am na ci yoo xamante ni du réglé wu fii de déedéet du fi réglé wu yàlla subhanahu wa taala ay mbiram ak a wóor doomu aadama yëpp teew malaaka yëpp teew rab yëpp teew kenn ku ca nekk laa yatakallamuuna illa man adina lahu rrahmanu wa qaala sawaaba bala ngaa wax yàlla lay jox ndiggante boo waxee fan la tàmbali loo fa ngay tàmbalee bu jeexee fan la yem loo fa nga yem gis nga ko de laa yasfauuna illa liman irtada duñu ramm mukk lu dul ku yàlla gërëm wa radiya lahu qawlan ku yàlla gërëm la ñuy ramm de laa tanfau shafaatu indahu illa man azin lahu rahman nga saay-saay suñu borom mu ne même buñ la rammee ramm ga du la jëriñ de fa maa tanfauhum shafaatu shafiin ku leen ramm tamit ramm ga du jàll lii leer na de ku leen ramm ramm ga du jàll fa maa tanfauhum shafaatu shafiin nga suñu borom mu ni wa man yuslim ku jébbal wajhahu jëmmam ji lillaahi ñeel ilallaahi jëm ci yàlla wa anibu ila rabbikum wa aslimu la wa anibu ila rabbikum la wax de ila rabbikum ci yàlla wa aslimu la jébbalu yàlla mu koy defal koo xam ne yatawaffaakum bil layli wa yaalam ma jaraxtum bin nahaar xam ni est ce que xam nga ne yéefar yu njëkk ya sax yéefar yu njëkk ya sax am na lu ñu gën a baax le ndax xam nga tey shirk bi doomu aadama yi def fi raxaa'i wa sarraa fi darraa'i wa sarraa aydan bu naqaree ñi ngi sirk bu neexee ñi ngi sirk te moo ne bokkaalekat yàlla yu njëkk ya wallahi bu naqaree dum sirk dañuy daaw allah muxlisina lahu diin ñoo ñaata de ndax ñooñu bu mettee dëgg dëgg dëgg dëgg ak ñàkk jom feeñ ñàkk jom gi mooy delluwaat cosaan muy ca yàlla gis nga de daaw allah muxlisina lahu diin ah joxoon ko nag la in an jeytana min haadihi la nakunanna min ash-shakirin yow rek lan fi yaakaar xam nañ ni kenn mënu fi dara xam nga xam nga yàlla dafa bokkut ak ñun bu doon nun a da nga fiy nekk naan da nga may naxaat bu ma la ko defalee après di yàlla dana dimbale gis nga loolu lépp ci ci yërmande ji la bokk rek ngir bëgg nga baax waaye nag li tax suñu borom di ko def bokk na ca wallahu aalam yàlla ko xereñ la gis nga bu ñu génnee idaahum yushrikuun du ñëpp de am na ñu am jom ñoo xam ne fa la ñuy jaaree soppeeku parce que doomu aadama xelam ku dul ku yàlla tëj am xelam rek bu ñu bisee daal di commencé jariñu suñu borom mu ni ku jébbal boppam yàlla jébbal sa bopp yàlla ndeysaan saa bu nit ki faatoo ci ngay xam ni gis nga nit ñi yi ñuy wax ak yi dëgg ak li ñu gëm maanaam li ñu gëm sax li ñu gëm ak li ñuy wax daa bokkut nit ki bu faatoo ñu takk ba mu dëgër sàngee ko perkaal roof roofal ay ay ay parfum ci popputaan yi wicc wiccal ko ko muur ko def la ñuy def jullee ko ba noppi nan ko jébbal boroom boroomam aw akbar mu ndax moom jébbalu woon na akabata laaj nan ko jébbal yàlla est ce que jébbalu woon na moom waa mbokk yi lan ngeen xam ci waajoo xam ni ña nga yërëmtalu ba jébbal ko ya rek moom jot su woon a jébbalu moom tam dañ ko koo jébbal jébbalu force yàlla mën a jox leen ma parce que man doog naa ko soxla ab néew moom yàlla rek ko soxla néew suñu borom rek ko soxla moom rek koy jël summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq ñu yóbbul la yàlla nag mu ne ala lakul xukma wa huwa asraul xaasibin est ce que jébbalu woon nga al istislaam al inqiyaadu ah lillahi rabbil alamin nangul yàlla kese nga xam ni say ay directive am kese ngay topp bëgg-bëgg ma sàmbaak ma dembaak moom daal bu ñëw rek da nga koy ardu ci téere yàlla bi mooy misaanul xaq kat bu dëppoo téere yàlla bi ñu topp ko gërëmee la ko bu dëppoo wut ak téere yàlla bi ñu mooy ko ñaanal la xam ne yaa jàdd yoon bi li de mooy maanute borom bi mu ni ko ki jébbal boppam yàlla wa huwa muhsinun ba pare fekk mi ngi rafetal waaye jébbal naa sama bopp yàlla ba noppi rek defoo dara déedéet yàlla du feesalal kenn sa say bagaan yaa koy rootal sa bopp da ngay taataan da ngay jëndi bagaan dem taataan fa ndox may xellee nga am ci njariñ la sunu borom mu ne kooku de faqad istamsaka ngoy na bil urwati l wusqa ci buum bu dëgër gi muy laa ilaha illa allah ji nga xam ni ku ci jàpp rek tàbbi àjjana yàlla yàlla defal na ko kon ku def istislaam ñeel yàlla kese nangul ko gis nga boo tëddee ba guddi fay làmp bi fu teeku jaaxaan ñépp tëdd nañ ay trois heures du matin xaaji guddi ay yoo ñooy kii kii bi ak i salaire salaire mu wóor la ni koo yaakaaroon rek mi ngi nelaw comme yow koo yaakaaroon mi ngi nelaw comme yow bu nekkoon yàlla kuy jekkuwaate la naan jekku naa la tey dama laa bett di bett di dóoraate di bett di songaate yow foofu rek la lay fekk foofu rek la lay fekk def la muy def sax kenn du ko fekkee waaye déedéet koo xam ne yàgg yàgg nan la ko yëg jërub loolu beneen bi ci des mooy boo jëfandikoo sa conscience nga xalaat ni fii ma wéet ci biir néeg bi moo fi lor fekkoon tey ban doomu aadama moo mën a dimbali li tax suñ lay tere fanaan yow kese nga tëdd ba guddi feebar bu garaaw attaqué la ah sa gémmiñ ngay fuur ah nga jaaxle ndeysaan kenn dimbaliwu la allahu akbar foofu nag nga gis doomu aadama ji ay yàlla ay yàlla façon ñàkk jëm goo yaakaar rek doomu aadama dana ko wax keroog foofu nag moom daawullaha muxlasir lahu diin foofu lay ñëwee su ko defee gis nga doomu aadama su xalaatoon tey xoolal yow ñi nga doon yaakaar di leen dimbali ko ñëpp kenn mënu laa fekk ci biir néeg boo tëddoon ba guddi ndeysaan malakal maw ci yegg si nag yow ku lay sabaati seede sax ndeysaan doo ko gis yàlla rek allahu akbar ah léegi nag ci ngay xam ni yàlla yàlla laa yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa su ko defee jébbaloon sa fekk na yow jébbaloon nga sa bopp yàlla bu la yàlla soxlaa rek ñëwal yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam benn jaam du bëgg a dajeeg yàlla lu dul yàlla bëgg naa dajeeg moom benn jaam du bañ a dajeeg yàlla lu dul yàlla bañ naa dajeeg moom su ko defee doomu aadama ji nag jébbalul yàlla subhanahu wa ta'ala balaa dara xew ñu takk la ba nga dëgër ni la dallam ci pax mi suul la jàll ci yitte aslamuuka ila rabbik waqad aslamta min qabl jébbal nañ la yàlla fekk yow moom ñii li ñu def dañoo tar yow jébbal woon nga yàgg na kiñ la booleel juboo nga ak moom xaritam nga da ngeen a juboo da ngeen a déggoo woon waxtaan ngeen ba juboo ndax doon nga ko defal lim bëgg ku ko def muy def ay topp bàyyi ay moy sunu borom mu ni wa ila llahi fa yàlla kat aqibatul umur mu jënt li mbir yépp ca yàlla lay dellu coow li bari léeg lépp sunu borom a koy àtte gis nga yi ngay dégg ñu naan naax na saay bi enquête yi bi ñu paree fii la mujj naax na saay fàtte nañ ko waaw fàtte nañ ko déedéet ah ahsaahu llahu la wa nasuuhu kay waaye kenn fàttewu ko ahsaahu llah yàlla noté na ko di pointé di xaar wa nasuuhu ñun ñoo ko fàtte suñu borom ni wa man yusda wa man kafara képp ku weddi fala yaxzunka bum la naqari bum lam tiis kufruhu ak weddeem ilayna marji'uhum ci ñun la ñuy dellu si ñoom yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam te wa kadalika kullu du'aat nit du bëgg mooy yàlla di am ci kaw suuf waaye nag mbokk yi nun du'aat yi liñ bëgg nag yàlla du ko def de loolu tamit nañ ko bàyyi xel léeg-léeg nag xam nga xir xir du am tëg xam-xam wala xikma dafay lor nit ci doo ko yëg benn ci man fi ni kenn ku ci nekk ci ñun ñii ñëpp soo sañoon tey dëkk bi yëpp baax kenn du soxla ci ñu bon kenn yaa xi dootu amati tiyaaba amru bil maaruf kon bu boobaa ngir mi du demee noonu de yàlla da ko defee noonu de dëkk bi ñëpp baax amut naan sàngara amut njaalo amut quartier njaalo amut dara yàlla du ko def mukk ndax bu ko yàlla doon defal kenn defal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam te beneen bi ci des mooy yow bu la ko yàlla defaral loolu baaxul ci yow baaxul ci yow de ndax li tax baaxul ci yow mooy dootoo amati foo sàkkoo tiyaaba moo tax am na barab yoo xam ne bu la fa yàlla tegee da laa bëgg a dimbali ay tiyaaba la lay wutloo yow bul xaddi bul découragé bul jàmbatit nag waaye est ce que loolu day wane ni yàlla gërëm na ko déedéet gërëmunu ko de wala yarda li abadihi al-kufra waaye nag wa in tashkuru yardahu lakum bu ngeen ko defoon wàññiwul yàlla dara la bëgg a wax waaye nag ah suñu borom gërëmut loolu de su ko defee doomu aadama ci kon mbonte day am maa am ngay woot ñi ba ñi mbon nañu dem ci baax ndax am na ñoo xam ne dañ ñëw waaye am na ñoo xamante ni kutiba shaqawatu ala jibaahihim dañoo bind ak texee di ci seen jëya xam ngeen ni yéen a ngi fàttali ko xadis boo xam ni waxoon naa ko fi yàlla bi mu bindee bàyyi aadama ba noppi ah ñaari riwaaye la ñëwee benn bi dafa sëq ab sëq ci njaboot bi ni pay sànni ndeyjoor sëq sëq ni pay sànni càmmoñ ni haula ila al jannati wala ubaali wa haula ila naar wala ubaali ñii ñooy dem àjjana man lu ma neex laa def man suñu borom ñii ñooy dem sabara man lu ma neex laa def suñu borom moo tax mbir yi daal lii moo taxoon saxawe ram yent bi kon jërëtul ñu jaamu yàlla nan toog yent bi ne déedéet yaamalu kullu muyassarun lima xuliqa la jëf leen de ndax ku nekk yàlla da lay yombalal la nga la nga war fa nga war a dem beneen bi waaye bi aadama daa gestu gis am mbooloo mu neex a xool mu reetaan gestu bi gis mbooloo mu naqaree xool mu daal di jooy yonent bi mu laajee jibril mu ne ko ñii ñooy waa àjjana ci njabootam ñii ñooy waa sawara ci njabootam gis nga kon yooyu moo lay wan ni borom bi subhanahu wa taala moom mbirum yëpp moom noppi na nit ñee fi nekk di coow rek waaye moom noppi na ci mbir yi ba pare kon képp ku weddi falaa yaxzunka kufruhum weddeem bi mu la metti ilayna marji'uhum fi nun la ñuy dellu si fa nunabbi'uhum ñu xamal leen bi ma amilu ca lañ doon jëf lépp suñu borom àtte leen ci ndax inna allaha sa borom yàlla alimun aji xam la bi daati sudur li ci dënd yi lépp la xam innahu alimun bi daati sudur huwa alamu bi ma fi suduri alamin yàlla moo gën a xam li ne ci biir dënn yi doomu aadama yi ñuy wax ak yooyu yëpp suñ biir la pour ñun rek man na ma laa wax ba wër la fekk li may wax dooma ci dara waaye loolu sama bopp laay nax naxuma nit ñi de ndax yàlla moom xam na subhanahu wa taala alimun bi daati sudur moom xam ne li ci biir dënn yi su borom mu ne nu mattiahum ah daañ leen di teeylu di leen yombalal mbir yi rek di leen teeylu mooy istidraaj istidraaj ak nu ma teexum benn lañ ba bàyyi ñuy béewlu rek xalilan diir bu gàtt ndeysaan nga defee ni gudd na soixante dix ans quatre vingt loolu day tus par rapport ak lu àllaaxira la par rapport ak sax ñu daan dund juróomi téeméeri at loolu du dara ndeysaan du dara balaa ngaa xam ne du dara sa bisub sa bisub paralysé egsi ci nga xam ne li nga jot a dund ndekkete du dara dara boo ca génnee ya nga nekkoon ko nekk ya nga jàng école ak yéen la doon dóori ca daara ji nga génn waar ci li nga doon nelaw ak bis yi nga si buroog yi nga wànneen la cay des dootul bare dootul neex gis nga kon doomu aadama lu gàtt la nu ma teewul xalilan dundu gu gàtt lay wane ne gàtt na mooy da ngay gis ko dem àllaaxira ñu naan ko ñaataat nga dund mu naan lam yalbasu illa ashir aw duhaaha dañoo judd yoor yoor faatu tàkkusaan kooku sax bari leen lam yalbasu illa saata min annahaar une heure temps lañ am yataarafuna baynahum kii naan may diw kii naan diw une heure temps bi lépp ci nga fi judd am fi doom xamante beeg am fi goro am fi lépp ci biir waxtu bi loolu daa mën a nekk yataarafuna baynahum suñu borom ne xat xasiru ñii xal ko nañ de perte nañ de xat xasiru perte nañ de te li ñuy wax dara amu ci borom bi subhanahu wa taala mu ni ah nu mattiahum xëy na dama leen di beewul ci àddina bi tuuti rek moo tax gis nga milliards yeeg millions yeeg comme dégg naa gars yi nañ jamono milliards lan toll moom léegi kenn waxatul million milliards rek te dafa dem ba léegi daanaka ñi amul milliards sax xam nañ ni milliards léegi ndax yaa ngi dégg dégg yooyu yëpp mu lay téye taaxi kaw yeeg milliards yeeg alal du lewul jeeg ger geeg gereese geeg yooyu yëpp bu mu lay téye xalilan lu gàtt lay doon lu gàtt wallahi lu gàtt la doomu aadama dafa bëgg nag day sànn li muy war lix li muy lekk lix li muy sol lix li muy naan kadalika du dara du dara zahrat al xayaat dunia rek lay naftinahum fii waaye wa rizqu rabbika xayrun wa abqa allahu akbar moo tax mbokk yi alquran boo koy jàng gis nga alquran nag boo koy jàng nag boo naree mam rek moo lay tëtaan nga dellu si nag saa boo naree membre rek bu xëcc la ah lii lii daa am solo zéébal xayaati dunya li nekk si yoon fii li yàlla da ciy fitnaan dañu war a suqeet ak xaar ba àllaaxira lii lii lii mu ne ah inna jaalna ma al ardi zinatan laha lii yàlla da ko def ay taaru àdduna day jeex gis nga gis nga zahara al xayaati dunya wa ma al xayaati dunya mu ne ah illa mataaul gurur ah chaque fois loolu ah lii daa am benn solo fala taxurannakum alxayaatu dunia àddina bu ñàkk solo ba mu leen war gis nga yii alquran moo tax di ko tadabbur moo tax ma ni boo naree maam moo lay delloo si waat su ko defee nga xamaan ni kat nag lay saan borom baa nga denc ci ay xiiwal loo xam ne maa laa aynun ra'at wala udunun samiat wala xatara ala qalbi bashar loolu nag li tax doomu aadama dafa bëgg a aaji la mooy lu teew moom daal bëgg na tey rek ay biram daal di sotti tey moom lépp moom na daal di sotti tey fekk déedéet loolu yàlla du ko defee noonu subhanahu wa taala suñu borom mu ne nu matti awum dañ leen di géewlu ci ay xéewal qalilan lu néew summa nadtarruhum ñu daan leen nuural nag ila adabin galiz ci mbugal mu méttee métti yàlla subhanahu wa taala musal nu ci mbugal métti moom mooy àllaaxira kat bu fekkee gars yi dem nañ ba yegg ca fa nga xamante ni fa la suñu borom doon indee mbugal ma ndeysaan àjjana ñëw mbugal ñëw nga gis doomu aadama fàttaliku lim defoon ndeysaan maa agna anhu maalu alal jëlum ko doon jariñ dara ma an agna ankum jamaukum li ngeen doon dajale mbooloo mi anam halaka anni sultaniya ma agna anni maliya alal ji anam alal ji boo dellu si wallahi gis nga néew bu dellu si waatoon néew bu demoon mu bàyyi fukki fan ak juróom mu dellu si waat xool ni mu def ginnaawam da war a war nañu xalaat ci loolu de gis nga néew buñ suul miraas ko balaa 15 jours mu dellu si waat xool ni mu def ginnaawam wallahi dana xam ne nit ñi jubóog ñoom jubóog yàllaa ko gën a wóor ndax yow lim lay def ci sa gannaaw dara ci séddut dara ci séddut ndax lan lay def lan lay njëkk a def rek moo njëkk a métti gas suul alal jëm ñu séddale joom nga maye góor ñaa ngay tàmbalee xool kër yi kenn ku ci nekk di xalaat ban la cay jël ila yow nin yow lan lay saisir ba nga jeexal tàkk yow naka ngay gam-gamlee koo xam ni da lay saisir ak koo xam ne li nga dafa yor a kus néew la lay dubleel ngir teral la moo tax loolu doomu aadama bu koy xalaat day góorgóorlu moo tax borom ni summa nadtarruhum ila adabin xaliz ñu daal leen dugal ci bugal lu méttee métti suñu borom ni wala in saaltakum mooy sax de boo leen laajoon ni leen man xalaqa alsamawati wal arda ku sàkk asamaan ak suuf la yaqulunna allah dinañ yàllaa ko sàkk loolu moom doomu aadama yi sax amatuñ ci werante moom wax dëgg yàlla ndax maanaam damaa jàpp ni sama xalaat wallahu aalam mooy nit ñi li tax ñu di ko wax mooy affaire affaire asamaan ak suuf dafa vague ba nga xam ni maanaam di ci jéem a dugal keneen day feeñal sax doye nekk sax wax lu amut nag ndax asamaan moom sama bàyyee ko moom wala diwa ko sàkk moom defe naa wax leneen moo ko gën a yomb moom même la ngay wax sa bàyyi bu ko moomul sax muy gën a neex a gëm nga ni asamaan si moo ko moom déedéet wala moo ko sàkk déedéet loolu moom doomu aadama yi dépassé nañ loolu parce que benn boo nee sama bàyyi moo sàkk asamaan si ñu xool sa ati bàyyi fekk bërki démb la judd asamaan si moom bëgg aadama nekk avant mu fi ñëw ba léegi mi ngi fi ah wax dëgg yàlla da ngay daal di weddi sa bopp moo tax ñëpp dëppoo nañ ci loolu même yéefari sax loolu lañ daan wax sunu borom ne qul neel alhamdulillah kon de sant ñeel na yàlla ndax yàlla ma buñ ko bañaloon lépp nangul ko lii rek sax baax na ko ndax moo ko moom te boo ko nangulee lii war nga ko mën nangul li ci des moo tax mu ne qul alhamdulillah neel sant de ñeel na yàlla bal li fi ne kay mooy aktharukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamun dañoo xamut waaye ku xamoon asamaan si nga xam ni bana banaynaaha bi aydin wa inna la muusiun suuf si nga xamante ni farashnaaha fa ni'mal maahiduun li ne ci diggante mi mu ne min kulli seen xalaqnaa zawjan la'allakum tazakkaruun la ma war rek mooy fafirru ila allah yow mu bàyyi fi ñëpp daw dem ci yàlla mu ne inni lakum minhu nadirun mubin am nag dama leen di waar nag wala taj'alu ma'a allahi ilahan axar bul bokkaale ak yàlla dara inni lakum minhu nadirun mubin léegi nag li fi des nag mooy kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulillah qalu sahir amuñ ñoom bu ko defee bu yà xam nga yàlla bu la bindee texee di moom texee di nga rek bu la bindee nga texee di ku nar a xalku moom xalku na rek mënoo fexe ba gindi gindi gindiku sunu borom ni kon nag lillahi ñel na yàlla sunu borom bu màgg bi maa fi samawaati mboolem li ci asamaan yi ci moomeelam ak a yaatu wal ardi ak li ci suuf si lépp sunu borom ko moom inna allaha sa borom yàlla huwa alxani mooy ku oomal ki allahu akbar alhamid mooy ku ñu gërëm ki lan mooy oomal mooy koo xam ni ba àddina bi sosoo ba tey koo fi digg ñu naan multi milliardaire la yàllaa ko may ci li mu yore te loola wàññiwul ca lu suñ borom feeñu ci sax faf moo tax gis nga booy ñaan ñaanal yàlla wasalullah min fadli tàllalal sa loxo yi nga ñaan yàlla allahumma inni asaluka min fadlik allahumma inni as yàlla lii yaa ko moom yow suñu borom mbir mi yaa ko moom lii nekk ci loxo ñii ñii yëpp yaa ko moom man ñaanuma kenn yow laay ñaan asaluka min fadlik yàlla may la moo la koo digal wasalullah min fadlik ñaan leen yàlla ci ngëneelu bi nga ne ko maa ngi lay ñaan ci ngëneel yi ndax moom moom moom yëpp suñu borom mu ni sunu borom moomam li ci asamaani moomam li ci suba wal xani mooy ku oomal ki antumul fuqara ila allah ñëpp ñàkk soxlaal yàlla wallahi ñëpp soxlaal yàlla gis nga doomu aadama lu mu yéefere yéefere lu mu bon bon bon soxlaal na yàlla subhanahu wa taala ndax am am na foo xam ne boo ko wéete di nga xam ni fii moom yàlla rek bu ñëw rek du baax sunu borom muy alxani mooy ki oomal waaye alxamid mooy ku ñu gërëm ki ku ñu sant ki suñu borom mu ne walaw anna ma fi l ardi ay bu fekkoonte ne na ci kaw suuf si lépp min sajarin ci ay garab aqlaamun daa suppalikuy xalima wal baxru géej gi mer Moroc mer Rouge ak Atlantique ak limal yi nga jot a xam yépp ak yi nga jot a dégg bu yoof beeg bu ngor beeg limal yi nga loo xam rek wal baxru la te liitar ci ay ndox suñu borom mu ne yamudduhu mu koy daal mu koy cappal min baadihi la ca amaat ca gannaawam sabaatu abxor juróom-ñaari géej yoo xam ne allahu akbar li fi ne ciy géej nga doublé ko ba muy nekk juróom-ñaar li àddina bi lépp ci ay garab li puurkat yi puur ak li defarkat yi gën yi yett ak defarkat yi esthétique yi liñ yett ak jën yiñ samp ci mbaar yeeg mooy bant yu dëgër yooyu ah bant yi ñuy xaddee sengat ba ñëw ci yu gën a sew sewaan yi loo xamoon ci ay bant rek ba àddina sosoo ba tey nañ ko soppali daf koy xalima ngaw bari kooku de xanaa bu ñu ko jëlee ci àddina bi xanaa lay tee àddina bi fees dootul bareeti ndax boo génn àddina boo génnee li fi ndox lal nga xam ne mooy naaj li fi ne ci garab lépp lépp nga bëgg koo jël lan yett ak li fi nekk ak li ñëwagut lépp ñu suppi ko daf koy xalima jóob ko maa ngi yaakaar ne soo paree dootoo amati foo mën a tàllal tàllal ba tëdd de suñu borom ni ndoxum géej gi ñu duble ko muy juróom-ñaari yoon li fi ne ci ndox lépp ñu duble ko juróom-ñaari yoon garab yi soppali ku nekk ay xalima géej gi soppali ku nekk daa di ko cappal suñu borom mu ni la nafida al baxru ah qabla an tanfada kalimaatu rabbi ci beneen aaya fii nag suñu borom mu ni maa nafidat du jeex mukk kalimaatullahi kàddu yàlla yi subhanahu wa taala allahu akbar allahu akbar xoolal mbokk yi géej gi li fi nekk rek saa ñu def ko sabaatu abu xor xoolal tey li ñu doon nekk ci garab ci àddina bi rek saa ñu def ko ba àddina bi sosoo ba tey rek bu ñu ko doon cappal di wax waxi yàlla mu ni mu ni mu ni loolu daa tuuti jëlal àddina ba mu sosoo ba bi muy jeex lépp ñu soppi li koy garab géej gi fi mas a nekk ñu dund ko ba muy juróom-ñaari yoon bii di xalima bee di ko cappal suñu borom mu ne da ngay bind kàddu yàlla di bind kàddu yàlla di bind kàddu yàlla ba mu yàgg xalima ya jeex daaja jeex kàddu yu des loolu la imam alxaafid alxakam yi doon wax ca téeréem bu màgg ba sulamul usul di ko fa junju ah di wax ni ah law saara aqlaaman jamiu sajari tey su fekkoonte ni mboolem garab yi rek daa soppali ku nekk ay xalima mu ni wal baxru tulqa fiihi sabaatu abxurin géej gi ñu duble ko muy juróom-ñaari yoon tegal ko ko pour mu di ko cappal mu ni wal xalqu taktubuhu bi kulli aani fanat walaysa alqawlu minhu faani doomu aadama yëpp ñëw ñoom ñii tudd woon ñëpp ñëw kenn ku ci nekk rek jël ci garab yori xalima di bind mbooloo moom fun fun fun xaj mu ni fanat xalima yey jeex daa di jeex walaysa alqawlu minhu faanin te wax yàlla du jeex wax yàlla bokk yi alquran dina bokk gis nga ñiy gëm ni alquran bindeef la aaya jii da leen di tontu xam nga nu mu leen di tontoo mooy alquran ginnaaw bu ñu dëppoo ñun ñëpp ñu wax yàlla fa amuñ fa werante te yàlla moo ni suñ doon bind wax ji du jeex lépp lu dul jeex melokaan yàlla lay rek lu dul jeex rek dañ laa bind luy jeex rek dañ laa bind lépp luy jeex rek dañ laa bind kullu shay'in haalikun illa wajha léppay haalku ba mu des yàlla kese te yàlla nee na ay waxam moom du jeex te wax melokaan la ca borom wa sifatu tatbau lmawsuufa ndax melokaan banqaas la ca kañuy melal kon melokaan wu waa ji yore rek wala jëmm ji yore wala sunu borom bu doon moomam wu yore rek moom la melokaan way yore moo tax aaya ji rek bokk benn aaya bi doy na sëkk pour tontu ñi gëm ni alquran bindeef la alquran du bindeef de loo xam ci alquran tontu ko ne ko loo xam ci waxi yàlla rek ku ne loo xam ci alquran nga ne ko loo xam ci waxi yàlla rek bu dee jàpp nga ni wax yàlla moom mbindeef la day jeex kon jàpp nga ni yàlla bu ñu xoolee ay melokaanam am na wenn melokaanam wuy jeex su boobaa yow bu yow nga xam ni sa aqida këpp na ni gën guñ dëpp bu yow nga dëppari ñu ko mbaa sab soq taq suuf yàqu moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni maa nafidat du jeex kalimatullahi kàddu suñu borom yi inna allaha yàlla kat aziz ku not la ci nguuram waaye xakim ku xereñ la moom suñu borom subhanahu wa taala suñu borom ne gis ngeen maa xalqukum bind gi leen yàlla bind wala baatukum ak dekkal gi leen yàlla nar a dekkal bu àllaaxira illa ka nafsin waxida comme ku nar a dekkal benn bakkan comme benn bakkan ci yàlla subhanahu wa taala xëy na nit ñi dañ fi nekk naan hi adduna bi ni ñu toll ci ay population bu leen yàlla nar a dekkal war leen a àtte benn par benn nu muy demee xam nga loolu misaal mi ngi koy jox waa addina mooy ca jamonoy cinquante wala quarante cinq buñ daan calcul nga xam ni sa waay booy bëgg a def miraas mbaa ngay bëgg a def nangam te jamonoy 1945 tey boo doon bëgg a miraas rek sa waay waa ju bari alal subhanallah da ngay sonn sonn sonn ah kii bi ci nekkee kee du ko kee du kee du du doon ndax am na koo xamante ni war naa doon waaye fii ak jiw fi du doon ah am na koo xam ne war naa doon waaye am na xaajis bu ko téye moo tax du doon am na koo xam ne war naa doon parce que. kii dañ koo ëmb nun koy def te génn gut xamuñu ndax góor la wala jigéen la alal di kat ñii la toll da nga ciy yàgg mën nga caa am ay fan ñu dem tey ba am ay machine yoo xamante ni léegi da ngay toog nii waa ji lu mu bàyyi caalal ngay nangami million ñaata doom ngay nangam ñaata ngay nangam gis nga boo bindee ba àggal benn bouton ngay bës rek mu ne la mu ne la diw mi nga dugal bokku ci de génne ko parce que am na ko ko xaj diw mi nga dugal bokku ci de génne ko diw mi dugaloo ko waaye war naa dugg gis nga ba pare nga bë mu génne le résultat bi jeex na cinq minutes nga mën cee miraas waa ji lu mu bari bari alal waaw léegi boo comparé loolu ci àdduna bii bii bii bii walillahi almasalul aala fi samawati wal ard gis nga ko de te lii may wax am na te li ma ci gën a neex nag ci technologie boobu xeew nag benn mbir doo nga ma ci neex nag mooy defar nañ ko defar goo xam ne fi ne boo dikkoon ci jabar yi fi mu nekk nii bu ne la ñaata soxna la bàyyi booy bind cinq machine bi day bañ du ko bind de pour wax la ni la ci quatre lañ war a yem man essayé naa ko nga bës cinq mu lànk benn logiciel la bu gars yi defar pour mirage gis nga bu ñëwee ay soxna doo moom lim boo indi mu bind ko waaye numéro cinq mënul muusa bi ko bind ko ci ci yi ma ci gis boobu ma ni ñii de xam naa ni xaw ma jël tiyaaba la nar a gën a bari la waaye bii moom moom dinañ ci am tiyaaba yu bari insha allah loolu day wara ni maanaam fii lañ war a yem fi mooy rond point bi moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne illa ka nafsin waxida comme dekkal benn bakkan ci yàlla ah wala sax aw huwa aqrab wala mu gën koo jege wala mu gën koo gaaw wa ma amru saati illa ka lamxil basar mbirum alaxira moom comme xëpp xëpp xëpp mi affaire yi jeex suñu borom mu ne inna allaha sa borom yàlla samiun aji dégg la li nit ñi wax lépp suñu borom mi ngi koy dégg waaye jërub tontu ndax xam ni yow li li li li li doomu aadama rek doomu aadama ci melokaanam rek ah du wax yëpp ngay dégg di ko tontu déedéet rawatina boo nekkee ku ñuy joxañee diine li benn waykat doon wax naan law kullu kalbin awa alqamtahu xajaran la asbaxa alxajaru misqaalan bi diina bu da ngaa bëgg a jaar ci mbedd bi xam bu la mbaaw rek nga ne koy bu la mbaaw sànni koo xeer bu yàggee di gëjën ba da nga yore xaalis ba gëjën xeer xeer yi jeex rombal nga dem sa yoon moo tax am na yoo xam ne déggal rek bàyyi nga dem samia suñu borom dégg na lépp moom subhanahu wa taala waaye nag yàgg-yàgg danañ ñëw ca moom waaye basir aji gis la moom suñu borom li doomu aadama yi def ci ay mbonte yëpp da nga def suñu borom gisu ko ah kay gis na ko de waaye nag moom du ko yàkkam ci ndax loolu du ci ay melokaanam te it xam na ni yàgg yàgg doomu aadama dañ ko fekk kon buntu bii maanaam lii doomu aadama da ciy jàngaale ab yar moom loo xam ni ci boppam lay jëm si moo tax ñu ngi ñaan suñu borom mu defal lu tawfiq yal na yàlla may ñu aljanna musal ñu ci sawara yal na yàlla gindi ñu ba suñu pas-pas set ba keroog ñuy dajeeg moom yàlla bu ñu dajeeg suñu borom lenn lu gën a tuuti ci ay bokkaale allahuma inna naudu bika an nushrika bik wa nas xaytu naalam wa nastaghfiruka lima la naalam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain